suuratul ixlaas yi nag saar la wu màgg woo xam ne ay daraja màgg na lool waaye tamit li si wax si ay njariñ ak i xéewal ak i tawfeex siw na lool bokk na ci loolu yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam nee na képp koo xam ne guddi jot na ngay tëdd daal di jàng suuratul ixlaas yi ak qul yaa ayyuhal guddi googu suñu borom dina la ci aar ba nga di nga yeewoo ba di nga yeewoo jàmm incha allahu rabbi te itam soo ko xamee soo ko xamul na xam ne yow moom mucc nga ci bokkaale yàlla loolu ñuy wax boo bàkkaaru bokkaale suñu borom musal na la sa doonu ab bokkaale kat ndax ñaari saar yooya bu si nekk rek day firneel kenn gu yàlla gi ak màggu gu yàlla gi ba tey bokk na ci njariñul sooratul ixlaas yi te mooy xul huwallahu ahad bam jeex képp koo xam ne jàng nga ko bisub dimanche heure bi waxtu yu mooy ay huit heures et demi jàpp neuf heures nga jàng ko fukki yoon daal di siy ñaan yàlla sa aajo aajo jooju su tolloon ne asamaan ak suuf tamit suñ borom dina la ko fajal ci kàttanam incha allah ba tey bokk na ci njariñu sóoratul lixlaasi képp koo xam ne ay noon solal nañ la wala ay tooñkat wala ay yàqu-yàqu moo xam la la yàqal loo xam la wala mu doon sax loo xamul nga jàpp ba sell julli ñaari rakkaa yu sell ci bërëb bu wet daal di koy jàng junni yoon te moo di mille fois cent yu àgg rek nga wax ne allahumma inni salattu ruuxaaniyatu haasihi suurati xarraha wa yaabisaha ala ruuxi fulaanu zaalimi wala aduwu noon boobu ak yàqkat boobu soo waxee loolu suñu borom incha allahu rabbi dana leen alak te itam dana leen musal seeni pexe ak seeni yàq-yàq waaye nag teg nañ ci ne ku dégg lii na nga ragal yàlla te bañ kaa jëfandikoo si lu dul tooñkat bu ko yelloo ba tey bokk na si sóoratul lixlaas ay njariñam képp koo xamante ne si jàng nga ko benn yoon wax nañ ne am nga yoolub ku wàcce ab kaamil ba mat képp koo xamante ne si tamit jàng nga ko ñetti yoon am nga yoolub ku wàcce ñetti kaamil kon nag loolu rek su doonoon ay njariñam doy na sëkk waxantuma laag laneen ba tey képp koo xam ne di nga faral di ko jàng lim bu bari saxal ko lu man ñeen fukki fan muy quarante jours yoo xam ne bis bu set di nga ko jàng trois cent fois muy ñetti téeméer ak fukk ak ñett incha allahu rabbi lépp loo yëngu suñu borom dina la si defal ndam te itam dina la si defal barke te itam dina la si defal ak yëkkatiku te képp koo bokkal tamit soo ko taniwul du la tane kon nag sooratul ixlaas mi ngi noonu saar la wu mat a fonk saar la wu mat di jàng waaye tamit saar la wu mat a tax xool kon nag képp ku ci bëgg yeneen ni leeral rek soo wootee incha allahu rabbi si numéro yi dinañ la ko baaxee si kàttanu yàlla wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu